نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين toogee woo fi rek xalifa général murid waaye l'islam bi yëpp moo fi teewal yàlla dafa waxoon yonti yàlla daawuda di ko def naa la ngay xalifa ci kaw suuf yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fil ardi waaye loolu ñi ko doon yow dañ cee bokk l'islam bi yëpp nga fi nekkal ñu ngi lay ñaanal mbàkk yàlla nga fi yàgg lool te ànd ak wér te saa yoo gëstoo gis ñu la sa maam Cheikhul Khadim bëggoon ci loolu rek la nekk ndax sa maam moo waxoon ni maa fi wutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu fi bàyyi woon rek danaa ko yeesalaat lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhul xarraau mu inni almatu lu fi yonent bi defoon rek danaa ko beesalaat sa maam ñëw liggéey li mu liggéey ci Sénégal barki démb maa ngi wax ni Cheikhul Khadim li mu ñaan yàlla lépp yàlla nangu na ko ah, la koy firndeel nag mooy lam ni woon zurriyatan tayyibatan yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma njaboot koo xam ne lu ma beesaloon bu ñu ñëwee gën a beesalaat kon nag Mbàkke ñu ngi ñaan sa tee sa taxawaay bii yàlla ko yàlla gën a saxal ñun nag danoo xàmmeewul këru diine yi li ñu xam mooy lislaam tey yow la ñuy xoolee Serigne Babacar Sy Mansour yow la ñuy xoolee mbooleem këru diine yi ndax nag sa maam moo ñu jàngal ni التاريخ يقبل الطريق وكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى إلى الجيلان أو انتمى لأحمد التيجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على السواد la sa maam digle woon ci loolu rek la ñu nekk Mbàkke Balla yàgg fi lool dundal wéral zaadaka allahu tasrifan wal baraka di jaahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne am na murid yi ko xamul jërëjëf ok ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñu defaat ay leeral ci ustaazu supp kànje yi ku ci mel ni waa ji di Modou Fall ak kam ci andal da ay nit yo xamanteni diina l'islam la len ci ñor rek moy la len amal intérêt ak lay dellusiwaat ci ñoom ci ay bien ak la len amal njëriñ ñoom waye du jëmmi jàllale message yu yalla ak yonentaam comme nu waré fuñu dem rek ay kàkkatar la doon fépp fuñu dem mën nañ changer couleur ñoom fépp fuñu dem dañuy xol nit ñi nañu mel ñu sol mbubu moomu su demee ci jigéen ñi nga bëgg ñi nga xamanteni ñoom seeni waxtaan yépp mooy lu ñu bëgg a dégg mooy diggante wujjog iñaan defante yu mel noonu su demee foofu loolu lay wax su demee ca ya wax la neex ya su demee ca ya wax la neex ya bu demee ca laayeen ya wax wax la neex laayeen ya oustaz suppakaan yooyu nag ñoom ñoo bëri biir sénégal ñoo accaparé télé yi ak rajo yi lu sénégalais yi bëgg dong la ñu wax c'est rare nga gis leen ñu toog ba wax ci bakkar ba yàlla gën a bañ muy bokkaale te xam nañ bu baax bokkaale lu mu tasaaroo la Sénégal xam nañ ni bokkaale lu tasaaroo la Sénégal xam nañ Sénégal lu fi bokkaale maara deetaali ñoo ko gën a xam nga xam ni tey bokkaale day xaj nit ki dugg aljanna tawxid duñ ci wax tawxid bi nga xam ne mooy passeportu aljanna mbooleem ñoom lañuy ñuy wax buñ demee ci nit ñi mbooleem la ñuy wax nit ñi naan lool lu baax la ñoom bu àndut ak tawxid amul benn njëriñ moo tax doo leen gis loolu ñu xuus si mukk doo leen gis mukk ñu naqarlu ci ñàkk julli bay faal yi jamais te xam nañu loolu kéefër la ñoom ñoo ko gën a xam xam nañu ko bàyyi julli bàyyi war yéefër la mais doo leen gis mukk ñu wax ba naqarlu ko doo leen gis mukk ñu wax ci musiciens yi doo leen gis mukk ñu wax ci animat animateur rek animatrices yi yooyu duñ ci wax parce que ñoom dañuy lënkaloo ak ñooñu yàqkat yooyu la ñuy bal sax yàqkat yooyu lañuy toogal di def ay émission ñoom lañuy xool rek mooy la leen deex loo xam ne buñ ko waxee dina deex nit ñi ñu wax ko moo tax ba mu demee ci xalif bi tamit daa xool la neex xalif ba ak ña ko wër mu wax loola ba indi ay aaya yoo xamante ni yàlla mu ko jagleel yonente yi aaya boobu daal di koy tabal manam takal khalifa bi manam dal dikoy dor ci khalifa bi waaw da ay bi yàlla yo lay waxal yo genno ci moo la yàlla wax ni ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard yàlla mu ne yow daawud ñoo la def nga nek nga wutu yonente yàlla jitu won ci di digle lu bax ak di tere lu bon ci di leral nit ñi tawhid ak di leral moytu lo shirk Modou Fall nee na nag aaya boobu de kamu jàkkaarloo dafa dugg ci aaya bi waaw ka mu jàkkaarloo na yàlla wax ak Daawuda noonu la wax ak moom maanaam sëriñ bi daal maanaam la yàlla bokk na ci ñu yàlla di waxal ci aaya bii nii gis ngeen ñii fu ñu toll gis ngeen ñii fu ñu tollu aay bi yàlla mu ngi ne daawuda ñoo la def nga wuutu yeneen yonente tey yàlla jiitu woon ci digla lu baax ak tere lu bon kon ni ko at-Tabari waxe ci tafsiram ba lu mu ci teg wala tattabiul hawa bul topp sa bànneexu bakkan fa yadilluka an sabilillah mu réeral ci yoonu yàlla yàlla teg inna alladina yadilluuna an sabilillah lahum adabun shadid ñi nga xam ne dañuy réeral nit ñi ci yoonu yàlla bi ñooñu am nañu mbugal bu tara tara tara tara sëriñ bii mu jàkkaarloo nafa naka la fi wuutoo yonente yi yonente yi seen mission bu njëkk moom mooy woote ci kennal yàlla ak dàq bokkaale yonente yi la lañ doon wax seeni xeet yaa qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin gayru yonente yi li ñu daan wax xeet mooy wéetal leen yàlla moytu leen bokkaale loolu moo nekkoon mission yonente yi moo nekkoon mission ñoom daawuda ñoom suleymaan mboolem yonente yi ki nga jàkkaarloo ki nga jàkkaarloo day woote ci bokkaale ci nga jakarlo moy taxaw nan yowmal qiyam bu yalla taxawé ne yonenté bi taxaw ne sëriñ ba taxaw nele ma rombu yalla ak yonentaam dem ci sëriñ ba yonent ba nga yonent bi ma nga ne sangu bindeef yépp sëriñ tuwa nga ne dama leen di rombu ñew fi ci sëriñ bi lolé mo doy <laughs> te dara mënuma doy nag lu loolu googu nu jëm àllaaxira xam xam xam xam nañ ko bu baax baax xam nañ ko bu baax waaye ngërëma sëñ Tuubaa rek lañ fa soxla waaye nee na li koy xam xam ngërëma sëñ Tuubaa rek moo fa daqal àjjana ne moo ñu fa moo ko fa dàqal àjjana moom waaw nga te te la nga am na am na lu fa daq àjjana nag te nee na am na lu fa dàq àjjana. nag bu na ku am ngërëmal sëñ Tuubaa am ko. nee na loolu ku am ngërëmal sëñ Tuubaa am. ndax ngërëmal yàlla rek la. mooy ngërëmal ngërëmal yàlla moo dàq àjjana. moo dàq ngërëmal yàlla nee na rek la te moo waaye ku am ngërëmal sëñ Tuubaa. ba pare di bàkku ne looloo ma doy amul lenn dara lu ma doy lu dul loolu looloo ma doy nga ne kooku yow moom mooy nga ne kooku moo wuutu yonente yi ci kaw suuf. wala kooku moo fi nekkal yàlla te yàlla lu mu gën a bañ mooy ku koy bokkaale mooy bàkkaar bu yàlla gën a bañ inna allaha la yaxfiru an yushraka bi du jéggal ko koy bokkaale nit bu ci faatoo kii di woote ci loolu naka la mun a nekkee kuy wuutu yàlla ci kaw suuf wala kuy wuutu yonente ci kaw suuf ndax kii day woote ci lu yàlla bañ mooy bokkaale taxaw na fi ne yowmal xiyaam bu demee ba am ngërëmalu yàlla te amul ngërëmalu sëriñ bi amul ngërëmu sëriñ bi nee na amul lu ko neex nee na soxlawu ko wax naa ci fan yii wax na ci fan yii sëriñ bi sëriñ bi malaayika yëbu ko malaayika yëbu ko ab yonent yëbu ko ab yonent yëbu ko sëriñ bi jëf leen jëf leen waa suuf. sëriñ bi jëf leen di wut ak waa suuf. jëf leen ñoom. jëf kii nga jàkkaarloo mooy wax loolu nee bu demee ba yowmal qiyaam am ngërmandey yàlla te amul ngërmandey sëriñ bi nee na kontaanul kii moo ko wax <clears throat> sosalu bu ko def vidéo yaa ngi fi. kii moo fi taxaw ne bay bayfaal yi nga xam ne duñu julli duñu woor mu ne dañoo am jagle mel nañ leen bàyyi ak seen jagle kii moo ko wax kii naka lay wuutoo yàlla ci kaw suuf wala yonente yi ci kaw suuf ndax mboolem lu yonente yi doon woote kii da màbb yonente yi ci julli lañ doon woote wa amur ahlaka bis salaa la yàlla wax yonente tey na nga digal say ñoñ ñuy julli yonente yi ba ñu ñëwee dañoo digle ci julli mboolem yonente yi dañ daan julli amul benn yonente bu daawul julli mboolem yonente yi dañ daan julli moo yonente bi salaa sallam mu ne ñun yonente yi dañ ñoo digal bu ñuy julli ñu jël suñuy loxo ndeyjoor teg ko suñuy kaw loxo càmmoñ teg ko suñuy kaw dënd bu ñuy julli loolu day wane ni mboolem daan julli kii daa ñëw màbb loolu nee na am na ab kuréel lu yonente yi daan woote am na ab kuréel boo xamante ni ñoom am nañ jagle bañ ko def. am naa xam ne suñu borom day leen daf leen a joxu jagle. am naa ñi nga xam ne suñu borom daf leen a joxu jagle. bàyyi leen ak seenu jagle. bàyyi leen leen ak seenu jagle. loolu nag loolu nag mën nañ cee ndax euh, buñ bu ñu nee sariya rek bu ñu nee sariya rek xel dem ci Baay Faal xel dem ci Baay Faal waaye su ñun nekkul ci yoon waaye ñoom suñu yoon nekkul ci ñoom sëriñ bi nee na ñu ñu amul jagle sëriñ bi nee na ñu amul jagle lañ leen bàyyi seen lañ leen bàyyee ak seenu jagle loolu ma nga ci joor am na ñoo xam ne suñu borom daf leen daf leen a joxul jagle am na ñi nga xam ne suñu borom daf leen a joxul jagle bàyyi leen ak seenu jagle bàyyi leen leen ak seenu jagle loolu nag loolu nag mën nañ cee ndax buñ nee buñ nee sariya rek buñ nee rek xel dem ci Baay Faal dem ci Baay Faal waaye suñ yoon nekkul ci yoon waaye ñoom suñ yoon nekkul ci ñoom sëriñ bi nee na ñi ñi amul jagle sëriñ bi na ñi amul jagle lañ ak seenu jagle weddi mboolem yi aaya yàlla wax ni ku julli yéefar nga mboolem aaya ci alquran yàlla wax ni ku dul julli yéefar nga moom fee la ko teg na yii ne ñii kuréel sàngam am nañ droit bañ a julli bañ a war bal sax kuréel googu la jël di ko dóor ci kaw julli ñi kuréel bu dul julli du woor kuréelu kéefër ku dul julli woor islaam amul kenn ku werante ci lislaam ni yéefër la kooku ñooñu la sëriñ bi baaxal ne ñooñu dañoo am jagle ci seen kéefër googu jël leen dóor leen ci kaw jullit ñi di leen dóor ci kaw doogu jullit yi nga xam dañuy julli du woor naan ku fubal ak jàppal dóor ku dégradé jàppal dóor te ñooñu di football ak di dégradé di léttu mèche di julli du woor ñoo gën mbaam yooyu nga xamante ni ñoom la yónni ndax ñooñu duñu ay jullit yaa Modou Fall kii naka la wo naka la kii wuutoo yàlla ak yonente bi ci kaw suuf yonente yi dañ daan digle lu baax di teralu bon yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan xutba kii mosoo gis mu taxaw ci kaw minbar di xutba kii mos nga ko gis mu ubbi benn téere tafsir alquran baqara ba naa ci toog di tafsir weeru koor jot yonent tey seen mission moo nekkoon jàngale seen mission moo nekkoon yeete seen mission moo nekk waaraate kii ba mission la def ci loolu à part fu mu toog mooy sëriñ bi rek sëriñ bi rek xasida yi rek xasida yi rek kese du ab aaya bu mu lay wax ba firil la ko du ab xadis bu mu lay wax ba firil la ko kii naka lay wuutoo yàlla ci kaw suuf bàyyi leen seen naafiqisme bii ngeen nekkee bàyyi leen seen hypocrisie bii ngeen nekkee nekkee leen noonu di talawun topp belle vie bi topp ña di may otoog ña di may ay jasneer ak ña di may ay kër jàpp ni àdduna bi day wëy topp leen bànneexu àdduna bi ba mission bi nga xam ni moom ngeen waroon derule ngeen échoué ko ndax lan topp li nga xam ne mooy buzz topp li nga xam ne mooy lu neex nit ñi parce que xam ngeen ni yenn discours yi boo leen koy wax doo leen yàgg ci télé yi yenn privilège yi doo leen ko wax doo leen ko am moo tax à chaque fois da ngeen di xool lu neex nit ñi rek foo leen dem nit ña la leen neex rek loola ngeen di wax bu ko defee ngeen di mën a am ay billet avion gratuit di mën a am ay visa gratuit di mën a am ay oto ñu ne di may oto ak kër ngeen topp loolu nag fàtte ni dee dina ñëw yéen ustaasu suppu kànja yi wallahi dee dina ñëw di ngeen dee yàlla dina leen laaj li ngeen doon wax di ko jottali nit ñi lan la woon ndax yàllaa taxoon wala seeni poche taxoon ndax la ngeen doon véhiculer ndax noonu la ko yàlla waxee di ngeen taxaw ci karamu yàlla yàlla dina leen ko laaj di ngeen fàtte privilège yépp nekkoon ci àdduna yii yépp ngeen doon sóoraale benn fulla amoo leen ko toog ak ay pape cheikh diallo ngeen naan da ngeen di ubbee Boleh xamoon lu nekk ci fatwa fatwa balaa ñu naan nit ki war na toog def fatwa surut yooyu boleh ko xamoon wallahi fu ñu leen ne kaa leen ngeen ubbee kaa leen ngeen tott ay question di ngeen sol ay dàll wañ daw mais amoo leen benn personnalité toog ak ay Pape Cheikh Diallo bu ñu posé question diine bu am solo ngeen war a tontu nekk fa di kakakakakakak di reetaan di tontu ay tontu yu ñàkk fayda benn fulla amoo leen ko benn fayda amoo leen ko wàccee personnalité lislaam ngeen nekkee amoo leen benn njëriñ jàppee leen ko nii rek ngeen jàpp ni yéen àdduna bi day wëy topp bànneexu àdduna privilège yu àdduna ba foo leen dem rek la neex nit ñi rek ngeen di wax la gën a am solo ngeen teg ko fële boo leen deewee da ngeen taxaw ak ñooñu ñooñu ngeen di réeral ñëpp ak ñooñu ngeen waroon dindi xamal leen luy priorité bokkaale bi nga xam ne ñu ngi ko nekkee tawxid bii nga xamante ni yéen yow mii leer na sa bopp xam nga ko doo ko wax parce que da bañ nit ñi daw la boo ci karabu yàlla yàlla dina la xisaab wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad you